kuréel gi ëmb nappkat yi fii ci Sénégal di UNAPAS lëkkaloo ak mouvement ñoo lànk ngir waajal nag marche bi nga xamante ne ñu ngi ko jàpp ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 fële ca place de l'obélisque ngir naqarlu nag accord de pêche ak licence de pêche yi nga xamante ne nguurug Sénégal daal dina koy signal bato yi bàyyi ko fële ca biti réew ñëw di salfaañe suñu géej gi. waa UNAPAS muy union nationale des pêcheurs artisanaux ñoo am benn xalaat. ndax ci seen i jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund ci seen secteur ci secteur de la pêche jafe-jafe mu doon jafe-jafe yu metti moo tax ñu am xalaatu ni dañu bëgg le 4 décembre bi ñu dem place de l'Obélisque pour def fa benn manifestation ci jafe-jafe yi ñuy dund ci nappuk Sénégal ñu ñëw fii nag ci ñu ñëw ci waa ñoo lànk pour ni ñu nekk ay sénégalais ñu gis ni ñu taxawee ci na ci Sénégal ci mbir yi ñu tàllal leen loxo pour ñu ñëw ànd ak ñun ci manifestation boobu ñuy def manifestation bi nag suma mbokk mi léegi wax na ko maam Thiam xam nga ñun dañoo doon ay nappkat fu ñu demee ba defar gaal jënd ko 30 million wala 40 millions dara desul lu dul ñu koy jàpp ay nit di ko yóbbu Espagne pour ñuy mbëkki kon jafe-jafe am na nañu ko nangu parce que bi ñuy defar gaal yi defuñu ko woon pour muy dem Espagne di yóbbu ay nit nit ñi di ci dee nit ñi di ci egg. defaruñu woon ay gaal pour loolu dañ ko defoon pour napp ci suñu géej géej googu ñuy nappe nag géeju Sénégal la te ñun ñoo ko moom doon ay sénégalais ci jamono yi ñu toll nag ñu ci dund ay jafe-jafe yu metti dara waralu ko lu dul ay licence de pêche yoo xam ne ñu ngi koy jox ay chinois ay turc ak union européenne ak ay grec ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ñu ngi leen koy jox ci réew mi xeex boobu nag dama jàpp ni lu xeexu ina rek même kiy lekk jën dafa soxla am jën parce que jën dafa am lu muy def ci yaramu doomu aadama kon bu ñu demee ba am jafe-jafe gis jën ci réew mii ñu nekk muy réewum Sénégal ñu nappkat yi dem ba am jafe-jafe dem nappi ut jën indil ko jox ko consommateur yi kon dafay jaaru ñu taxaw wax li xew li xew nag du dara lu dul dañoo nekk ci réew mi bokk ci réew mi doon ay nappkat kenn mësul gis nappkat bu génn ni day xuloo wala day def ay mars bu ñu demee nag boo koy def dafa fekk ni ñun amatuñu sax lu ñu dundee te dëkk Sénégal. gis ni investir nañ ay gaal ay 30 millions 40 millions bëgg a liggéey mënatuñoo liggéey suñu géej fu ñu wëlbatiku bato mbëkkuñu ci géej gi jën bi ñuy napp mu nekkoon jay wëyëng yaboy ak euh, merlu ak beneen xeetu jën coof kocc ruur jarañ ak baase kibaaro xeetu jën yooyu yëpp bato yi ñu ngi koy xëccoog ñun da gis bato boo xam ne day jógee Gambie wala mu jóge Casamance soob mbaal di ko diri ba egg si ndakaaru doog ko yëkkati tànk que mbaal mi feesul ak jën du ko yëkkati te ñoo ñu ëpp ay ka ñoo ñu ëpp matériel bu ñuy nappe bato boo xam ni day jóge Saint-Louis soob mbaalam di ko diri ba ndakaaru mu fees mu doog ko yëkkati pour mën a dem pour mën a yab jënam ñun nag bi ñu ko xoolee ba ci yàgg ñu xam ni bato yi ñoo nekk ci biir géeju ndakaaru ak biir géeju Casamance ak biir géeju Salmadi biir géeju Ndar taxaw fa jën wu war a wàcc si pour ñun pêcheurs artisanat yi nga xam ne ñoo dëkk ci réew mi moom réew mi ut ay gaal mënatuñu gis jën woo parce que ñoom ñoo ñu ëpp capacité tey bateau bi mi ngi guddee 40 mètres lay guddee am largeur 8 mètres wala 7 mètres di yàpp ay 600 tonnes 700 tonnes jën ñun mënuñu mënuñu mënuñu amuñu yooyu yooyu moyen amuñu yooyu moyen ñàkk moyen boobu nag moo tax ñoom ñu taxaw jën woow bu bu masaan a jóge ci biir géej immigré wàcc si ñun dañ koy jàpp te ku ne xam na ni këru nappkat yi ci tefes gi am na ci kër yoo xam ni bu géej amul jën duñu lekk duñu naan amuñu fonctionnaire boobee doxu ñaxtu nag ñu jàpp ko ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 ba tax na sax ñuy lancé ab appel njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall waaye tamit di ko artu ngir nag ñu jox leen autorisation ñu amal boobee doxu ñaxtu ndaxte fii ci Sénégal guléet ñu ne ñi di nappkat yi wàcc nañ ci mbedd yi di ñaxtu. manifestation bi ñu ngi ci woo Sénégalais yépp xuloowuñu xeexuñu yàquñu suñu alalu réew dañu woote rek pour ñun sénégalais yëpp ñu daje place de l'Obélisque di ñaan ñi nga xam ne ñooy jox auto autorisation ñu jox ñu autorisation parce que suñu droit la ñu ngi koy doog a ci Sénégal bi Sénégal amee ba léegi nappkat mi ngi fi doog a demander pour ñu may ko mu dem taxaw wax li ko naqari dellu ci biir këram xeexuñu xuloowuñu wootewuñu dara loo xam ne violence la dañu woote rek pour ñu xam ñun am na lu ñu naqari te yàgg nañ ko jàmbat depuis ministre yi fi jaar yëpp ñu ngi koy jàmbat te amul saafara dafa tombeek ministre bii fi ne nag mu gën a pire léegi nag ñuy woote président de la république pour ñu jox ñu autorisation de marche ñu dem place de l'Obélisque woo askan bi yëpp ina pass moo ko organiser mais mi ngi ciy woo askanu Sénégal yëpp muy journaliste bi am na ci woo nañ ko fa woo fa kuy lekk jën ak ku mu mën a doon woo nañ la foofu parce que bu ñu amul jën du ngeen lekk jën kon yéen ñëpp jóg leen ñu dem place de wax li ñu naqari bu ñu waxee li ñu naqari nag ba pare ñu delluwaat suñuy kër xool ba xam ñoom dinañ ko saafara am déet parce que napp gi fi mu toll dafa laaj ñu def assise de la pêche toog ñun ñëpp autour d'une table muy consommateur yeeg INAPAS ak secteur bi yëpp ñu toog wax jafe ñu jéem ñu ci utal solution parce que loolu la ñuy fale gouvernement nguur bu ñu koy teg pour mu utal ja utal jàmm population la ñun amatuñu jàmm kon le 4 ñu ngi woo sénégalais yëpp place de l'Obélisque waaye INAPAS ñu ngi woo sénégalais yëpp ñu daje place de l'Obélisque si jàmm ak salaam. def li ñuy def ku nekk delluwaat sa kër ci jàmm ak sa